Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk Sénégal mbokk jàmm jaam ak jamono Sénégal moom ma yóbbante donc euh, ñuy ñëw rek di continuer continuer si lancé bi nga xam ne si lañ nekk muy xeex ngir sunu démocratie bañ a ñu bañ ko caxat-caxatee di xeex ngir li nga xam ne mooy le peuple sénégalais vraiment la population sénégalaise di xeex ngir dëgg dellu ci Sénégal waaye di xeex aussi surtout pour jàmm sénégalais donc xeex bi nag muy combat boo xamante ne sénégalais bu nekk war na la yitteel bépp sénégalais ak foo mën a nekk ak foo mën a féete koo mën a faral ci politique wala ci diine ci lu mën a doon rek xamal ne xeex bi sa xeex la parce que nag ñi nga xam ne ñoo jóg li xeex yëpp comme ni ko sénégalais yàgg di defee comme ni ko un leadership yàgg di defee Sénégal depuis le temps des colons depuis ni ñu xeexee ba jot soi-disant li ñuy wax indépendance man damay nag est-ce que bu fekkee ne indépendance am na est-ce que nekkul ne dañ jaay ci yeneen façon yi maanaam jox nañ ñu suñu indépendance nii rek ci wax waaye nag après dafa am yeneen yoo xam ne dañ koy xaatimloo yoo xam ne duñu génn ci loxo nasaraan si te ñëpp dem nañ ba gis ne ci ñetti at yi ñu génn ne ne affaire bi noonu la demee ñu am nag ay leadership yu bees ay jeunes yu conscient xam li daw ci àdduna bi xam li xew ci réew mi li ko gën a yombal nag muy avènement avènement internet ak nga xam ne lépp lu tey lu nit mën a xam ci àdduna bi rek mu ngi ci biir àdduna bi boo sobee rek di ko xam tey nag Sénégal nekk ci situation bu précaire vraiment nekk au bord du kaw sénégalais yépp jaaxle sénégalais bu ne jaaxlewu ma nag doo nit sénégalais bu ne jaaxlewu ma doo nit ak foo mën a féetee tiit nga ak moo foo mën a féete démb say nelaw doyul yaa ngi xalaat tey boo xëyee dëkk bi nan lay demee ñun ñëpp nag ñu nekk bitim réew ak ñu nekk Sénégal Sénégal yi nag na ngeen booloo ngeen nekk benn Macky Sall bindu leen Macky sàll moomu leen Macky Sall président la tey comme ñi ko Senghor nekkee woon Abdou Diouf nekk ko ab Ablaye Wade nekk ko ba tey yàlla def moom mu nekk le président de la République le président Sall nag il a trahi le peuple sénégalais il a trahi peuple sénégalais peuple bi nga xamante ne moo ko jox doole peuple bi nga xam ne moo ko yërëm peuple bi nga xam ne moo ko jàppale bi nga xamee ne nee na yow le président Wade da ko doon xoqatal da ko doon sonal parce que dafa convoqué woon soi-disant Karim Wade assemblée nationale pour mu rendre compte tey nag euh, monsieur le président je pense que il est temps que tey yow ak ñi nga àndal ngeen rendre compte sénégalais ñu ngi leen di jéem a diviser nag surtout yenn journalistes yi ñu ngi leen di gis ci plateau yi ñuy poser yenn questions yenn leaders yi nga xam ne dañoo pare pour jóg xeex pour le Sénégal ñu jël xeex bi bëgg ko moomale Ousmane ko xeex bi son ko moomu ko xeex bi c'est pour libérer le peuple sénégalais Ousmane ko nag c'est le goutte qui a fait euh, déborder le vase loolu na ko ñëpp xam na ko ñëpp xam xeex bi xeexu sénégalais yépp la te nag la lutte doit être spontanée la lutte doit être spontanée te lañ soxla soxlawuñ organisation donc bu fekkee ne tey Ousmane ko depuis démb mu ngi foofu ñu téye ko ci lu duwul benn yoon ba mbir yi commencé ba léegi lu nekk def nañ ko pour tilimal deru jaamu yàlla boobu lu nekk def nañ ko pour tilimal deru jaamu yàlla boobu waaye yàlla dafa bañ yàlla dafa bañ di bañ di bañ ñuy insister di insisté yàlla nag bu tracé nga tracé day effacer tracé mu tracé waat nga tracé mu effacé waat tracé waat boo buggee tracé waat nag dalay dalay effacé yow ba pare tracé foofu lañ toll le peuple sénégalais tey ñoo représenté yàlla boobu ngeen di wax tey yéen le peuple sénégalais yéen ko représenté nit nag yàlla moo ne nit mooy sama xalifa ci kaw suuf nit mooy sama représentant ci kaw suuf kon tey lépp loo xam ne ñu ngi jóg di ko teg ci kay ay doomu aadama ay nit nit mooy taxaw ñëw faj ko gaynde du ko faj lu mu bëri doole ñay du ko faj amul benn rab boo xam ne tey mooy ñëw régler ñu suñu problème wala amul benn yàlla boo xam ne day wàcc jógee ci kaw asamaan si ñëw régler ñu suñu problème les soi-disant jullit nag bu ñu waxee ñu naan yàlla baax na nañu ñaan yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wootee ñu sonal ko lor wi bari lool ñuy lor jullit ñi toogul di ñaan yàlla te digganteem ak yàlla nii la amul dara xajul seen diggante dara waaye dafa jóg dëggal boppam xare jàmmarloog ñoom bañ may ko jàmm kon les gars Sénégal yi nañ jóg man nag j'ai trop mal parce que mënuma ñu nekkuma Sénégal barke la ilaha illa huwa man bu ma nekkoon Sénégal kenn du ma jiitu ci mbedd bi kenn kenn du ma jiitu ci mbedd bi nañ bàyyi naa naafeq yi te waxante dëgg il faut libérer le peuple sénégalais te yéen jeunesse bi yéen a mën a libérer libérer peuple bi buñ leen tiital buñ leen xoqatal que ce soit muy la gendarmerie la police nekkuñ fi pour tirer sur le peuple nekkuñ pour rey peuple bi dañ fi nekk pour protéger le peuple sénégalais te la jeunesse bu ñu génnee bu ñu génnee police bi di dal seen kaw ma kenn du sooru li nga xam ne mooy mooy état waaye naa la xamal ne le peuple rien ne peut résister au peuple rien rien ne peut résister au peuple ñu bàyyi diviser yi ñuy diviser Sénégal yi xeex bi tey xeexu patriote bu nekk la sénégalais bu bëgg Sénégal sénégalais bu bëgg jàmm rek sa xeex na bëri na tey ñoo xam ne ñu ngi toog seen kër yi ba nekk ñu xeex di tere seen njaboot ñu ngi leen yéen a ngi sacrifier seen njaboot gi waaw yéen a ngi sacrifier njaboot gi démb Karim Wade la woon barki démb Khalifa Sall tey ki nga xam ne mooy Ousmane ko gannaaw suba kan la man la yow la te sénégalais yëpp la lu tax sénégalais dafa am loo xam ne lu ñu moom loo xam ne sa Macky sàll ak ñi mu àndal ñu ngi koy caxat caxatee muy sunu pétrole muy sunu gaz sunu recherche yàpp kenn xamul ci ci ci lan lañ ko dugal indil ñu ay projet yoo xam ne ay projet fantôme la. ay projet yoo xam ne amulul Sénégal benn njëriñ au moment boo xamante ne mbay mi yàqu na napp gi yàqu na jàng xale yi yàqu na seen éducation yàqu na lépp yàqu na Sénégal kenn amatul yaakaar ñaata sénégalais ñoo dee ci géej ñaata sénégalais ñoo dee ci ndox mi ñaata sénégalais ñoo des ci désert bi ñaata sénégalais lañ téye libi ci dëkk naar di leen toroxal def leen ay jaam di leen torturer kenn waxu si où est la diplomatie sénégalaise où est la diplomatie sénégalaise kenn waxu léegi loolu doyatul nag ñu ñi nga xam ne ñoo am courage mu a muñ toog ci dëkk bi nañ leen toroxal nañ leen toroxal lekk loo xam ne tey sénégalais yi moom nañ ko jël nañ caxat caxatee boo gisee li xew démb ci li nga xamante ne mooy manifestation yi ngay foog ne seen normal xale yi di daw di dugg ci Auchan yi ah di piller Auchan yi di jël li nga xam ne mooy alali jàmbur yi di dugg ci boutique yi lan moo ko waral c'est parce que dañu xiif gëmewuñ ko gëmewuñ ko bu ku boo gisee loolu lekk da ngay daw lekki ko parce que boo ko deful ba dee da nga xaru xale nag moom bu xiifee moom bu gisee lu mu lekk da koy lekk amul ma dama xiif ak dama kii day ñëw directement xale léppam yàlla réaction immédiate la ma ne gaañi na ñëpp wàcc si terrain bi jàmm jàmm ak jamono laa wax jàmm sénégalais yi nag moo ñu libeere leen gars yi la moo jàmm ak la foog sénégalais yi xam ko naa fekk yi nag li ñuy wax jàmm ak yambar ñi ñi nga xam ne loo leen def jar na ko mooy ñi nga xam ne da ngay toog loo loo leen def loo ñu def ko jàpp tekkiwuñ dara jaruñ dara bañuñ dara Sénégal yëpp genre type yooyu nag la bari bañ leen ba tëdd ci xeer yi Sénégal li ngeen di bañ bañalu leen ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag moo ci tombee tey loolu la yàlla dogal mais sénégalais yàgg nañ ma ci Sall bi mu toogee ba léegi dañuy noot lu ko neex lay def képp koo xam ne tu es présidentiable am nga am nga ambition politique bu bu bu mag mu faagaagal la tey la Ousmane Sonko. Sénégal yëpp na laal bu fekkoon Ousmane Sonko rek la sax du Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko ñaata ko bëgg ñaata ñoo ko def seen xol ñaata borom njaboot am na ñoo xam ne tey ñu ngi yor seen njaboot mënuñ def dara seen xol jeex na ils sont abattus xamuñ ñuy def seen njaboot sax mënuñ leen xool am na ay tey ay kilifa ay borom kër yoo xam ne ñu ngi toog di jooy seen njaboot toog di jooy am na xam ne tey mënuñ génn ñu bëgg ñu gëmloo Ousmane Sonko affaire bi du Ousmane sonk affaire bi Sénégal la libérer le peuple sénégalais may leen ñu jàmm. may leen ñu jàmm mais ñaata scandale moo fi am ay scandale financier lu nekk ana Alioune Sall tey ana milliards yi ñu koy jiiñ pour pourquoi oowuñ ko Macky Sall moo doon oo Karim Wade tey na oo na oo na oo Alioune Sall tey ñu wax ñu suñu milliards yooyu fan la dugal yooyu milliards ba léegi kenn waxu si kenn waxu ñu mel ni dañoo liggéey Sénégalais yi mais xale man Sénégalais su ma gisee tey ku toog di défendre Macky Sall sax. man da nga may jaaxal quoi mais bu la neexee nga bëgg Macky Sall en tant que Macky Sall mais en Macky Sall en tant que président de la République mais lan la defal sénégalais yi lan la ñu defal te li mu def sénégalais yéen a koy gis yéen a teg seen bët sénégalais ñoo bëri naafeq bëri na ñuy wootee jullit ay naafeq lañ naafeq yi nag ci jullit yi la gën a bari ci mbooloo ñi woowee jullit si la naafeq yi gën a bari tey diine l'islam moo tumuranke Sénégal gàcce la sax gàcce. dañuy toog ci télé bi di fen ñëpp ay jullit la ñuy woote ak démb ni Sénégal tàkkee ni Sénégal méttee fitna yi am lépp tàkk ñu gis ci plateau yi ñuy invité ay nit ñu ñëw toog di jéem a défendre lii ñu foog ne bu ñu ñëwee dañu naan woo oh, fi mu nekk nii rek la situation devient critique foog ñu toog ñu waxtaan ñu xool lu ñuy arranger problème bi ñuy ñëw di gën a xambu tànn bi mais du n'importe quoi mais mais mais Sénégal fan lañ ne ban Sénégal lañ nekk. Macky Sall moomul sénégalais yi encore une fois ngeen dégg ko violenté na le peuple sénégalais terrifié na leen xoqatal na leen di diviser le peuple sénégalais dañuy toog sax ñuy laajte fan la sëriñ si nekk fan la kilifa diinay nekk fekk wax nañ ba sonn def nañ médiation ba dee lu ne wax nañ ko imagine tey di loolu mooy mooy mooy tax moo tax maanaam si wax leen ci kaw ñu dégg leen taalibe yi dégg leen jullit ñi dégg leen xam ne wax ngeen comme ni ko sëñ Habib si defee xam nañ ne wax ngeen ba dee ñaan ngeen ba dee mais Macky Sall moo leen faalewul joxu leen benn cër cër bi nga xam ne Senghor joxoon na ko Baye Niass jox ko Seydou Nourou Tall jox ko sëñ Fallou jox ko sëñ Modou Moustapha jox ko Seyna Issa Abdou Diouf ñëw jox ko sëñ Abdoulaat jox ko maam Abdou ah Macky Sall Abdoulaye Wade ñëw jox ko xalif yi xalif généraux yi fi fekkoon Macky Sall moo ñëw gox wee lépp. la mu waxoon mooy dëgg ne sëriñ ay citoyen ordinaire lañ defu leen sax ordinaire mais dafa leen wan ne tekkiwu leen dara faalewuma leen sama alal laa yor di leen ko jox bu ngeen ootee màggal ma ñëw def bu ngeen otee gàmmu ma ñëw def ne dama leen di tabaxal ay carte ay ay ay ay ay ay ay këru gan këru gan ñun lu ñuy doyee këru gan nit ñi ba ñu yàggee ganalee seen gan yi gan yi di jógee fu ne ci àdduna bi di ñëw ci màggal yi di ñëw ci gàmm yi boobu Macky Sall yow da nga falu waaw boobu état dafa xam lan mooy événement religieux ma ne sénégalais yi dama bugg ngeen yeewu bu baax a baax fii képp koo xam ne tey yaa ngi seetaan Macky Sall tey mu ngi ci Ousmane Sonko ci Ousmane Sonko la ma dee tëj waaye tëj na population sénégalaise bu yàgg-yàgg yóbbu ñu ci ndóol lépp loo xam ne moom la Sénégal yaakaar dund fileeg ay cent ans deux cent ans ci kanam yépp caxat-caxatee na ko ay mbokkam jël nañ ko ñi ànd ak moom tey ñi nekk ci nguur gi ak ñi ci nekkoon te nekkuñ ci ñu ji leen ay milliards yu jeex te ba léegi kenn waxu ci ñu ñuy rey benn problème boo xam ne problème mu complot ñàkk jom vraiment saay-saay bandi waaye ils nous ont honti tey foo dem ci àdduna bi Sénégal affaire de si la ñuy waxee bu ñu waxee tey lan mooy taal Sénégal ñu ne ñu benn leader koo xam ne il est il il le président de la République Sénégal moom lañ jiñ joué te noonu lañ koy waxee te li ñuy wax dara amu si Ousmane Sonko nga foog ne moom bu bëggoon bu bëggoon jigéen dina dem ci Adji Sarr moom ba di ko violé nag. quand même bàyyi yi ngeen di nax nañ bàyyi sénégalais yi li ngeen di nax yéen opposition bi yéen laay waxal bàyyi leen seen organisation yooyu ngeen di def fii rien n'est organisé tout est spontané nan génn leen ci mbedd bi génn leen ci mbedd bi il faut tout paralyser yéen a ko wax yàlla bu bëggee defar day mel ni kuy yàq Sénégal bi foog ñu foto kuy fot foog nga fete Sénégal fete leen ko ba mu set wecc ba foo toog di dëgg bruit Macky Sall nañu may jàmm li may wax nag dinaa ko waxaat Macky Sall bu moytuwul lii moo koy jëlee Sénégal est moom dina dellu si waat Sénégal sax ndax dégg naa génn na réew mi ay sénégalais yu ñàkk jom ay sénégalais yu gënal yu bëggul dara ay ponkalum jëmm tey waroon dem uti métier wuti liggéey di nangu ñu leen di fay ay 15000 francs ñuy yor ay mbé ay kii ay yambar nekk ci di dàqante tal yi loolu mais mais l'histoire retiendra ñi ngay am sa doom mu màgg ñu naan ko sa moo nekk ne 15000 lañ ko fay par jour muy daw di dal ci say say kanamu morom. te ñooñu ñuy dem di dal seen kaw ñu ngi bàyyi seen doom yi seen kër yi am na beneen côté boo xam ne seen i moromu yambar ñu ngi fa di duma seen i doom ñoom di nga gis ko ci ñibbi sa kër fekk sa doom sa moromu milice dóor ko ba muy bëgg de mais ñu teg ko fan sénégalais yi kenn du wax boo waxee ñu naan ay dañu bëgg jàmm nit ñu dañu bëgg a taal dëkk bi dëkk bi tàkk bu yàgg dëkk bu tàkk bu yàgg te ñi koy wax du ñu dara mooy ñi nga xamante ne seen dépense yaakaaruñ ci lu dul dem toog ci bureau yi vraiment di tàllal loxo di la woo téléphone yónnee ma nangam yónnee ma sàngam ceeb bi jeex na dama feebar lii ak lii ak lii te ñi nga xam ne ñoom ñooy sonn di leen yónnee xaalis yooyu di sonn si ñoom bu ñu nekkee ci jafe-jafe du ñu wax tey nit ñaa ngi nekk bitim réew bëgg ñëw Sénégal ñemewuñ ñëw nit ñaa ngi nekk bitim réew bëgg yónnee seen njaboot xaalis mu mënuñ leen ko yónnee xamuñ fu ñuy jaar ndax lan loo xam ne teguñ ko fenn ak chef d'accusation yi ñuy jël di ko jéem teg ci ndodd Ousmane Sonko yow ku ku la juge convoqué mu jóg di dem nga bloqué ko ba mu neex la ñu ne bon nañu dem jël avocat yi ne nañ dem jëli ko wax ak le juge ñëw di ko jël si ngeen wootante seen téléphone wax li ngeen di wax jël ko ne ko non doo uyu ji juge bi mais du uyu ji juge bi parce que bu demee ci juge bi juge bi libéré ko parce que xam ngeen seen dossier boobu di dossier dara complot la ay fen la ay kàcc la ay sos la yéen a ko gën a xam ñëpp defet ngoon doon bañ li ngeen bëggoon def ci xelu sénégalais yi tey mooy Ousmane Sonko bañ a wuyu ji loolu ngeen bëggoon taxe que rébellion mais nag il a été intelligent avec ñu ko wër ak ñi ko ko digal léegi nag affaire bi nag da nga ko ko bëgg a forcer par force sénégalais yi ñoo ko du nangu sénégalais yi ñoo ko dul nangu ci lii nag lañuy ñuy profité régler problème mu Sénégal yépp lépp lu naqari sénégalais xiif bi mar bi mbay mi napp gi éducation xale yi sécurité sénégalais yi lépp lépp lépp tey fii lañ koy régler waaw carte sur képp koo xam ne yaa ngi ànd ak Macky Sall nag bu yeboo nga tëj sa làmmiñ foo mën a nekk na nga tëj sa làmmiñ te ne nit ñi duñ leen ci bàyyi gars yi dañu pare du sedd de du sedd du vendredi du jeudi chaque jour la gaa yi chaque jour da ngeen di génn di bañ bu ñu sonnul bu leen sonn waaw ñu ngi yemale fii vidéo bi asalaamaaleykum Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.